Ndiaye jërë ngeen jëf Macky Sall dugg na ci caayee suñu waaye nag bi l'observateur protocole de Rebeuss bi mu nekk rek moom président du ca wax ndax débat la bu amul benn intérêt yéenekaay bi nee na ñu am na beneen protocole Rebeuss boo xam ne fu mu jaar wax ci mu di mburum stade Assane Diouf mi mu bëgg a defaraat delloo ko askan wi journal bi ci xalima ak Mamadou Seck ne ñu bu ñu fàtte ne état bu Sénégal kàddoom raw na ko foofee ba nuppi ñoo ko joxe woon ci jamonoy Abdoulaye Wade jox koy promoteur yu fa benn projet bu ñu naan projet Kawsara mu di projet bu juróom gaañi mu di ay doomi Sénégal yu lëkkaloo woon ak i seen ngir liggéey Sara San Diouf boobee ñu tudde woon projet Kawsara nee nañu ba ñu leen joxe Stade assan Diouf ak léegi lañ ci investir toll na ci fukki milliards yu tojul benn fifteen investir nañu ko ci ci darajee projet Kawsara sax ñoom seen waaye ca la ñu deforaate lii di stade maître Babacar Seye ba ca Ndar président Macky Sall mi wara a régler mbir moomee mi ngi xëy toog ci engin takk casque de sécurité di manœuvrer photo bi mi ngi ci xët mu njëkk la soleil soleil tegal ñu ci ne état bu Sénégal naal na naal yu rëy ca bu Dakar ay ponk li sànc ci wàllu infrastructure ak wàllu assainissement téeméeri milliards ak juróom fukk ngir def defaraat route des Niayes fukki collège ak juróom-ñaar yu ñu war a tabax ak it projet assainissement yu am solo ca cité Soleil ak cité Dalifort lépp gouvernement bi ma ngi koy nësër ca gëblëga Sud du Quotidien ñu junni ak juróom-ñetti téeméeri milliards yi ñu bëgg a def ci Ndakaaru ngir plan Dakar émergent ñi sëq géopolitique bi bokkuñu ci gis-gis Mamadou Diop Decroix nañu ci xët mu njëkk yéenekaay bi Macky Sall ak gouvernement ñoo ñu war a may jàmm ñi la ñu ne teel na askanu Sénégal taal nañu leneen ku leen génne ci coono jafe-jafe bi ñu nekk loolee la ñu bëgg waaye du ku leen wax waxee campagne Barthélemy Dias nañu dara lépp fenn kese El Hadji Mame Boye Diao bu APR di Diao Kolda ni ci journal bi nee nañu Macky Sall opération de sarme lay def maanaam di wër di tiitaru ak di wër di wuti nit bu dee opération de sarme boobee ña nga saafara jafe-jafe askan wi kon ndok réew mi quotidien ñu nañu remaniement boobee Bousse Maître mooy wéy di des di doon premier ministre bu Sénégal am na ay ministre yu nar a tëpp am na it ay ministères yu yeesu ñu nar a taxawal ngir gunge ko plan Sénégal émergent Le Quotidien nañu waxtaan wi nguur gi séqoon ak opposition bi doon ca waxtaanee code ak fichier électoral bi ba léegi ñoo nga ca waaye dafa am ñaari mbir yoo xam ne ca la ñu ñiwtoo benn moo di limub député yi ñu bëgg a yokk ci assemblée nationale ñaareel bi moo di anam yi ñu war a a ngay lijjanti ba léegi la xewoon ca démb am nay jege ñaalee Khalifa Sall yu ñu convoqué woon ci division investigation criminelle juróom benni waxtu def nañu ko fa ñu leen di dégloo mu di Birakan Ndiaye mi directeur de cabinet bu Khalifa Sall ak Pala Samb maire bu Point E Khalifa Sall it journal demoon doon leen jàppale fa xam le sax ne gaayam yi ñuy convoqué ci dig dara juróolu leen ko lu dul jege gu ko jege wal fajri mel ne ku naan ko jarul nga yàkkamte ndax sa gaañ mu di sa bras droit yi ñu convoqué ci dikk di leen déglu ak di leen enquête ka defi yëf yow muccagoo ci ki mucc mi ngi ci xët mu njëkku la tribune mu di Jibril Thiaw mooy maire bu Réfane nee na àllarba ci guddi ay minuit jàpp une heure du matin dafa jóge woon ca màggalug Réfane di ñibbisi bi muy ñibbisi ba toll ci autoroute APS bi fay tollug Tëngéej am cortège bu ko dàpp cortège bi ñaara watay 4x4 la benn Mitsubishi ak benn Toyota am benn motard bu leen jiitu motard bi feggal leen ñu feggu bi ñu tolloo ci deuxième péage bi cortège ba dabat leen di leen liyaar ab chauffeur di 17 nu muy def ak di jéem xam lu gaa ñi bëgg ca kenn ci garde corps yi newoon ci cortège bi génne fetalam dóor ko ci otom bal ba dal ci moteur ba yàq radiateur ba Abdoulaye di Jibril Thiaw ni ñu jëfi wan daal ju mel noone du ko bàyyi noonu kon day yomb da leen di plainte da leen di yóbbu ca yoon ndax xam nañu ko def te bal bi bu moyoon ci moteur bi ci seen kaw la jëm